yaa baaxu turu te baaxu askan yàgg nañoo siyaare ngeen ci yoneen yaa rafetub juddu te baaxi waajur ku xañ ci sey sitiit di julil ngor maam benn exemple la woon ci jigéen ñi li jafe woon jigéen ñi def koo yomb looloo ko tax moo ko may mbaaxam gi ak ku jaar aw yoonam mooy li jafe jigéen ñi def ko yomb lan moo jafe jigéen ñi mooy topp ndigal ak effacé wu ak bëgg nga àndal ak nawloo koy te def ko sëriñ bokk na ci la jafe jigéen ñi ne ci kër jigéen néew fekk ci la fa nga yéene ko li nga yéene sa bopp ci kër gi dégg ngeen ci nettalikat yi démb ak barki démb nu ñuy nettali bés boo xam ne dafa taw matt yi tooy boo amoon gattax mu tooy boo amee këriñ mu tooy te kim nekkal ci kër gi moo aye tey moo war a togg añ yóbbu ca tool ya nee nañu dafa génn ay yéreem teg ca lal ba laxas ko ca darab ba xar dencukaay ba mu doon denc ay yéreem jox ko mu def ko mat loolu jigéen ñi ku bëgg a baax ku ne foofu gis nga li fi yi liggéey jigéen ñi jàpp nañ ne ku la fekk ci kër gi rek daal koy déclarer guerre taxawal ci kanamam léeg-léeg bu ñu la ko mayee sax wala bu ñu mayee sa sa jëkkër ab ñaareel doo wax ne sama jëkkër ji takk nam ñaar dañ naan la takkal nañ la wujj mel ni yow yaa moom wujj wi donc yooyu moo ko mayoon mbaaxam googu di royukaay lool radiallahu anha ba sunu maam ji di ko wax ca ba itam ba waxam ja am solo joojee wa najjini wa jamii al muslimina maan daal ne wa najji walidati amina yàlla defar nga say bokk defaraw jaambur defar bawal defal kaajoor ak jaambur ña daa faloog ña doon boromi daara amuñu woon ku mel doomi jaara